Pokola da mën. loolu laa soxla da koo mën deux derniers combats yi adversaire day daanu. ñun ku ñu xool xam ne tey jii ñun fii ñu dëkk. ragal ñu ay dóor bay ragal daan dégg nga wax. parce que Bacira dafa mos a signé ndax ragal du jéggi ñu ñun amuñu lu suñu nar a am ay fitu ragal bàyyi ñu taas yi ngem dem xool leen wala ñu dem Mori Mori. yaa ngi dégg tey gis nañu fi visa États-Unis France Angleterre fu mën a doon mais dañoo jéem taxaw fii ña reyante yaa ngi dégg suñu naan ne fii nii di rëkkale ñu dem Modou Modou maa la dégg naa la bu baax. waaw naa la mbër mi mais euh, mbër yaa ngi ginaaw raay ah. ma lay posé yow bokkoo ci. Euh, ginnaaw raay kan moo fi dàq bëri. ginnaaw raay moom mun am mbër yëpp a mun bëri. xam naa parce que xale bu gën a ndaw sax soo xoolee muy bëri sax di xam ne kii dafa mun bëri. mais kan moo fi dàq bëri. yaa ngi dégg mais man ginnaaw raay ñu man man maa fi gën a cuune. mais yow kan nga jàpp ne moo fi dàq bëri. non man maa fi a cuune. non mais man maa fi gën a cuune yow moom nee naa la ah. ne ma grand bi man jàpp naa ne diw moo fi dàq bëri wax ma. non loolu moom ma ko def xam lu tax dama sama ay grand yoo xam ne tey jii. Mhm. ñooñu képp ku nekk tey mun naa yaa bëgg sa bopp. Mhm. whatsapp audio yi su ma léegi da nga am déedéet te xam nga rek loolu noonu mu man wax ji ma wax mun naa ko bañ jëlee dara mhm. mais mun nañ ko am luñ ko jàppee. moo tax foofu moom maa la si jégalu mhm. quoi. waaw boobu da ngay fente quoi. question mais ñëpp a mun bëre moom. coo jibul ah. moom man xam naa ko parce que maa ngi seen biir. mais benn instant dañuy euh, euh, hmm. bi nag yow bokkoo ci mais lamb ji wërngal këpp xam nga fi dàq bëri. ko dàq bëri lamb ji yëpp. Ah, mun naa maa dàq bëre. non mais yow bokkoo ci dama ah, may jox kan yow kan nga jàpp ne moo fi dàq bëri. sama idool moom na bëri koo xam ne moom jamono moom damaa jot taf ma sama wet Iba mécanicien jàpp naa moom daa waaw parce que moom jamono moom mun naa a mën a bëri yàlla dafa mu bëggal ma boppam. Iba Iba ak a parce que du dara sax moo damay wax. Mhm. mais damaa jël taf si wetam. comme mun naa ba si man mais bu a raa moom ñëpp mun bëri. nangul naa la léegi. waaw Iba mécanicien nga ma jox. lamb ji moo fi dàq bëri léegi danga may defal sa top 5 juróomi mbër bëri ci lamb ji pour yow kan ak kan ak kan la Iba mécanicien kan iba mën a bëri man sama laam yëpp mën a top 5 la. parce non non non non waxuma top 5 boobu maanaam yow. yow tey su ma la laajoon. juróomi mbër yi daa ko bëri ci RNB kan ak seen. RNB juróomi mbër yi day jox nga ma dèjà iba mécanicien. Eh, iba kan. ama balle. ama balle. sox. soxu yaw day yow mu def de demis demis ne ñoo da xabeul des ben <laughs> bay seras bay seras ñi ñoo da xabeul ci lamb yow dama la laaj ñoo da xabeul ci lamb ñu di lepp del ko ginaaw raay mais graaw non mais ginaaw na lamb oui ginaaw do man dal je te comprends graaw legui on avance hein mais dama non bi nga dalé sétane lamb ba tay ji ma xak yow ban combat nga sétane euh télé wala nga dem état sétane ko mu marqué la ba mënu ko faté combat bi la gëna marqué ci lamb ban combat la euh mëna lamb bassera mhm. pavaso parce que bo mëna ma taxaw kaw tibin di jooy te jamono bi yàlla na ko booy laa dégg yaa ngi dégg bàyyi sera Papa Sow te boobu damaa dox ba fële Demba Diop Demba Diop yaa na la lam yow sàmm dama dox ba foofu yaa ngi dégg te mun naa ne ba ñuy ñibbisi lu ma jàlloon ko si àll bi man mënu moo ko nettali ma parce que gars yi ñoo singal di ñu dàq ji te jamono ni boobu ma réer si. ma réer ma réer nag ba après ñoo mujj ne booy foofu de mën a ginnaaw daal super la kon laa ma yow doonul loo xamante ne naa ko gaaw a fàtte. moo a marqué ji la waaw parce que Papa tim saa di dóor ba sama rongeen di génn si boobu. ba mu ñëwee réeru ma sax. billaay. li moom loo mun a mel si àdduna rek na nga mun bëre moo ci solo. parce moo tax ñu ne bëre. waaw mbër de bëre. waaw bu doon bëre du dañ dañ ko tuddee leen. Mhm. mais boo déggee ña taxaw ma taxaw ñu àcc bëre. mën ko bëre moo gën a am. bëre bëre moo ci ëpp solo. waaw kon boo gisee mbër mën da nga koy naw. non waaw parce que lamb naan xamal leen de mhm. xaaj yëpp ay cunale <laughs> bu nekkoon 100 pour 100. Mhm. jàppal deux.

Ah. sa bëri hmm. sa entraînement ah. sa galaj lah. ñu ne la fo nga bàyyi ci benn ban ngay bàyyi man naa bàyyi galaj garaaw man sama fit doo dee. galaj ngay bàyyi sama lu ma dugg lu ne sama fit moo ma siy dugg. galaj ngay bàyyi waaw parce que laa boo mu fit. doo taxaw noonu yaay jël yaay dégg comme man lu may dugg lu nekk la damay jaar sama fit moo ma poussé ba mu am sañ-sañ bu taxaw. parce que am na ñoom bu abisif rek mooy seen tuwaat kii yaay naan tëf-tëf. buñ naan xaas ñuy daan wala def naa ko avant avant habitude selem lenn ma kii nekk billaay dënn bi da ngay gis muy mel ni luy daan kon fin moom mooy lépp mooy lépp naa bàyyi jàll euh, xam naa ne damay xaw a génn tuuti nag ci làmb ci sax su ma neexee xaw a dugg tuuti sa vie privée euh, yaa ngi ginnaaw raay ah waaw ah, question bu ma lay posé ginnaaw boo ko ci fan moo la gën a neex ci Sénégal dama la ne question bu ma lay posé ginnaaw raay bokku ci. man koñu manko bokku ci. mais ban koñ ban dëkk wala ban gox moo la gën a neex ci Sénégal. Euh, Touba Darou Salaam. Touba. waaw Darou Salaam. waaw moo la gën a neex ci Sénégal moo parce que sama yaay bu naan fa la nekk sama ay rakk yi fa sama ay mag yi fa tey su ma jugoon fii foofu la bo fi jógoon fa ngay dem euh yaangi Sénégal hein question bu lay poser Sénégal bokk ci ban rew mo la gëna neex ci aduna ban pays pays bo xam da ngay rêver un jour tek fa sa tank waaw bari na mais ban pays ngay rêver États-Unis moom su ma mënoon dem na fa dem États-Unis da ngay rêver ci cere doolu ñax ci cere sax su ma bëggoon dem quoi mais instant pour l'instant doona gis sama so pour léegi quoi d'accord mun naa moy moment yi ñëwaat mu don ko quoi on avance bi nga dalee bëree ba tey ji may xaj yow ban victoire moo la gën a neex ci sa carrière. waaw ba arène. victoire bi mu si gën a neex. Euh, parce que dama mos a bëree benn mbër quoi. Mhm. mu ne mbër bu bu mhm. ko quoi ko wax. Mhm. <laughs> ko wax quoi. waaw am luñ ko wax quoi. yaa ngi dawal nga jàpp ko daal. yaa ngi waaye nag loolu lu super waxoon nga loolu moom loolu jéem a déggal quoi. Mhm. parce que jamono boobu joxoon ko benn maanaam kii. dawal nga jàpp nga daal ak nu mu doon téye quoi. Mhm, mhm. fa mu nu muy man joxaloon naa moom buddi doo nga joxal moom buddi ko. waaw waaw waaw waaw mais bu moom. sama combat. Euh, on avance ah. benn sens dama naan bi nga dalay bëree ba tey mbapat ba arène ban defet moo la gën a métti sa carrière. defet. bi la gën a métti sa carrière. mun naa ne sama premier combat moom la. waaw ma ñu si doon waxam parce que laa mu jël noonu. jëlu ma ko daan deux cent xaw ma trois cent. Eh, mais booy xool da ngay gën a nekk xale. boobu noonu. yaa ngi doon soog dugg si làmb. yaa ngi dégg euh, ñu waroon xam mbabat ñëpp ñëpp toppoon ma bu jamono boobu noonu. nga nga dem bëri. ñu daan defet boobu moo la gën a métti sa diggante ak jaraaf yi su doon mbër euh, dama naan benn instant nag xam naa damay xaw a génn ci làmb ji tuuti euh, da ngay seetaan foo noo du ma wax César de. rek laa xam si joueur. Mbadou. waaw <laughs> sa joueur préféré. Sadio moom laa xam quoi. mais sa équipe préférée tamit amoo équipe même bu dee nawetaan wala équipe nationale. Sénégal Manko Manko man Manko sama lépp Manko la. Manko mooy sa équipe waaw. d'accord euh, on avance kan mooy sa waykat. waaw sama waykat moom man dama koy mere quoi man. yoro manko yaay caala ni di yaayam mhm. ñun bàyyi Cheikh Diouf di suñu bàyyi mhm. ma yoroo seen kër mhm. mais pour la mun doon jàppale mbëri gannaaw raay Pape Diouf waaw loolu lancé ko ma sama wéykat mais dama koy xamal mais ko lancé ko appel rek <laughs> waaw Pape Diouf yooyu laay waxal day jàppale mbëri gannaaw raay parce que amoo lu di gannaaw yoo ak gannaaw raay dañuy def déplacement parce que danaa kii euh, si gox bi dëkk fu mu war a dañ wëj mais ñu mango lañu dëkk même pas zéro mètre. sorewuñu si am combat dañ ko war a kii. jàppale jàppale. mooy sa sa comédien. ah ma ne benn comédien laa muy Bas. Bas benn boole de xale. fu mu nekk <laughs> non bi la nekk gannaaw la. d'accord Bas moom mooy sa comédien. waaw mooy sama comédien. on avance. Euh, série sénégalaise ban série mooy sa série préférée. non yow man du ma ko seetaan. teg. Euh, beneen sama en avance dama naan mbër nga liggéey tekki dal ci am alal ju bari langa nga ciy njëkk a def. non du sama waajur parce que mun naa ne du sama waajur kase mais yaakaar jamono bi dafa dafa bëri. Mhm. billaay jamono bi bu ñu gëmu yàlla sax mën nañoo dugg si loo xam ne bëgg ñu see dugg. Mhm. mais taw ñooy sant ñu gëm suñu bopp di bay suñu yaay di liggéey mais su ma amoon moom sama waajur laa njëkk a dimbali sama waajur bu jigéen. parce que yàlla maa def moom laa defee essence si àdduna. yaa ngi muy jàmbaar trop. tey jii nii bañalu ma dara. lu ma dugg lu nekk rek da siy jàpp. tey lamb yi may def sa bëgg. parce que moom ku yi la ragal. Mm-hmm. dóorante yi waaw dóorante yi parce ah. xale nga war a bëri. Mm-hmm. kërëb kërëb mais maa dëgg bopp rek lépp rek bëgg leen teral moo tax quoi. Eh, benn saa nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi loo fi jëlee. Euh, baat ci réew moom lu ma tere moom. maanaam nga am lu la metti ci réew mi loo xam ne mënoo ci dara ah, ah. nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loolu lii jële leen ko fi ñu jële ko fi loo fi amoon xale laa amoon lu ma la wax rek euh, tey nii mhm. jàpp ma am na lu war a neex ba am lu may métti mais gisoo dara lu la métti yéen dèjà yaa ngi wax ay agression ak yooyu noonu non loolu xam nga rek sànq loolu maa ngi siy xaaw a jégal waa sax parce que dama doon wax mhm. parce que tey mun naa ne grand frère mën naa bàyyi si réew quoi mhm. mais xel matul yaa ngi dégg. Mhm. doomu aadama toujours day jiw. Mhm. parce que euh, ñun man lu ma la wax sama tàngaay sama tension toujours si laay waxee. Mhm. mun naa wax sax nga yaakaar damaa métti te meruma. luy dëgg si man rek laa wax. moo tax cadre boobu tamit maa ngi siy jégalu waa mais benn amul la métti ci réew mi loo ne bu ñu la woon am nga benn baat ci réew ñun moom lu ma métti moom ñun nañu jàppale waa ginnaaw raay rek. parce que monsieur le maire mun naa amuñu ko. ñun maam jaara fa mooy suñu monsieur le parce que moo fi jàppale jeunesse. amul mbër bi takk ngem ku am combat. day dem ba sa kër lu mu lay jox mu tax.